sona si na nga def ma ngi sant bu baax loolay yek tay ci bés seen doom ah alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh ñoo ngi sant sun wajuri di sant sama sëriñ bis bi nak mom liñ ci yek tay moy xana content rek bis bi xana neex rek commencement bi mom neexagul na ma sha allah yep a ngi nii gaañ yàpp wek ceeb beek diw beek yep ñun ñëpp teew nan ñaan nak bis bi mom neex rek bis bi moom dëgg fa yàlla yëpp doy na benn yeeg yëpp ñoom lancement bi rek fi na bi ñëwagul dëgg yàlla yëpp yëpp daal doy na daal sama waa kër Ndiaye moo xewle man maay seenub jaam lu nuy def ak lu nuy wax man la ni jiital xëy bu ñu ma genn ak wet sama nijaay ñoom it fonk ma lool aj ma lool te kaw sama yimpaa ñoom sama bàpp ak teel a génn àddina xaw ma la may ñoom mosuñu maa jooyloo musuñu mer lo musuñu ma def dara soxla suñu am ma la ni jiital te mënuma dara xawma dara yalla na yalla yàlla ak defal jamm te ànd bi gëna yag ñom xalé yu góor yi muy jigéen ni ñom ñepp ma bëgg man ma leen mënta fay bis bi nak dama sé contane ba mënuma yeggale li may wax sax mënuma ko yeggal ndax ak bég bu baax ñun ñepp ño bokk bay xana nak ñu doon suñu rak yu baax yu yaru bëgg seeni mag fonk seeni doom bay bëgg seeni kilifa ba nopi nak bëgg suñu papa lool ñu doon suñu xarit fonk tamit suñuy mag yu jigéen yi sunu taw muy seeni saar mooy sunu xalifa ak abdou ak cheikh ñoom ñëpp nag ñu ngi leen di sant bu baax te di leen gërëm bis bi nag wax dëgg yàlla kontaan nan lool ndax lii rek lañ ko doon ñaanal xanaa di ko ñaanal nag doom ji mu dund ak jàmm ba mbeen ma doom mi ñu di ko muur muy sëy ci barke sëriñ Fall ñu dund nag bay dagga suñu bàyyi ay biye màkka ñu dem di siyaare ji yonent bi ñu koy ñaanal mu gudd fan ba sut bàyyam aw fan waaw bis bi moom neex rek kontaan nañ trop mënuñu ko fay daal dëgg fa yàlla xoolal ma rafet li xam ne dañoo mënut wax rek. yow lan nga ci borom bés bi. Hmm? nga. waaw sama mag la. sama mag waaw la. di ñaanal lii daal waxuñu naan ma dund am doy bu baax.

Hallelujah. 그걸 بسم الله وهو الرحمن وهو الرحيم قابل الأمان الحمد لله على الكتاب أنا بجاه المصطفى المصطفى اسم المبارك نقرا سابا كما يسلكاب الدنيا سابا ارجو سدم عابدة لله مع كتابي ورسول الله ارجو سدم عابدة لله مع كتابي ورسول الله سمعني به الإيمان قد صاب الإسلام والإسلام الصديق والفاروق كل بإخلاص وتوفيق وأقسم بالله من كل ما أخاف من وكيد خير الدنيا وبلغ wa ba tey maa ngi fii ni nga xamne ne moy Touba ci tudd bi nga xamne ne ne ma sha allah legui na ma daal di def tuuti ben plateau bu ndaw rek daal di toogal benn kilifa bëgg ko laaj mom bés bi lan la ci gis sëñ bi na nga def bés bi tay noko gis waaw bis bi de ni mako gis ne comme ni ma la xon ci suba rek manam mom borom bis mom manam ni bisam tol rek non la bisam bi tolu dal muy sëriñ borom bis def tutul dal waaw moo tax bis mom reey rek lay mën a def daal euh, comme ni ma la ko waxoon ci suba rek manam wax deug mbokk ye xarit yeeg am jamm yep ñew nañ dal waaw vraiment benn it comme ni nga ko gisee ni dara manqué wu dal xam nga waaw gis nañ ne dara manqué wu ci bëss bi ba mën na la laaj yow Serigne mom lan la lan la bokk ak yow ak lan la def ci yow ba tax bëssam bi nga téwo ko téway bu démé ni parce eh, que gis nañ sank ba légui ci suba ba légui yaangi def ay activité di dem ak ñew Wow sering de moom mën naa ne la wax dëgg ñoo bokk lépp waaw ndax eh, ay doomu ngomong lañ sama yaay moom ak yaayam xam nga waaw et puis dañoo bokkaat ci côté eh, eh, papaam ba sama nijaay la daal xam nga waaw moom fan nañ bokk daal bari na daal xam nga même ñu bokk génn kër man ak moom daal xam nga ma bëgg ko doon magam daal mu jox ma cëru mag daal waaw noonu daal la demee wax dëgg yàlla waaw àddina rafet loolu wax dëgg yàlla fu mu toll ñu nemmeeku fu mu noonu daal la bis bi dem moo tax mu demee nii mu demee daal. waaw ba tey nan laa defar ah sama mère jongoma bi ma daa koy dalal ci plateau bi bëgg koo laaj moom nan la gisee bés yi. waaw maa ngi nuyu di sant di gërëm di ñaanal nag Anta ak Serigne ñaan yàlla nañ am seen caari nag bopp nag lii li ma ci war a wax dafa bari dama fee ñëw di tuuti fekk fi gone yi jël ma téyel ma boppam hmm? nangul ma xiif nangul ma mar nangul ma rafet. sama soxla bu ko sama noni yi ne ko tee réew mi yaa ma tee tax man ak samay morom nak ku am sa soxla boko fëggé fëggee guddi mu fajal la ca kën du ko yëg def ma ne siini mi dib taawam wërale woon kër gii lu fi génn lu ne def bu sini amé damay am wóor na cheikh wóor ndey lo ma nek foofu wóor xale yi nek ci kër gi bañ nako ko ba mën na def may taw bu jigéen ci koñ bi lu muy jënd may jënd lu muy wax may wax lu muy bàyyi maay bàyyi balaa xotti yére na ñaara yére ko xott loolu ab cër bu ma jox la mënu ma ci dara bëgg mu bëgg ku ma bañ mu bañ gone yi nag maa ngi leen di ñaanal ci barke sëñ ma paati si la ni ko seen maam daan waate su waxee ne ma maa ngi ñaan ci barke sëñ ma paati si la ak sama góor bu baax seen yaay dina am lu baax ci kër gi te gis naa dama daan toog mu dima ko wax muy maa am ko naan ma mëti bomba mi ba mu ñëwee ci sama loxo yi ba léegi jooyloowu ma kon dina am caare nu boppam lool nak mang koy ñaanal Anta mi ndax caare nag bopam mom gis naa ko ndax moy nek say bokk def lu bax di bañ lu bon te ko deg mu naan buma doon goor bu doon goor du faj gàcce mom mi ngi ci bir famem faj lu def lu bax di dem fim wara dem di def lim wara def di faj lim wara faj kon lool moy rek baax Anta nak mënuma koo fay ndax bañ naa ko sama dom ji ndaw ji sax neena moy mooy tay dama ko jangal mu ne ma Anta damay ngénte sama jabar bu togge daf may tibba sen conteneur bi dikke ya yaa damay jox wal sama wal mu jekati walam jox ndeyloo ma nekk foofee nag ci laa ko war a ndeyloo dafa dikk fi yaa ma tukki bàyyi ñu ndeyloo foofu ma téyal ma boppam buy wër di njëkkim tabaski war a korte sax sama yére day génn ba nim nekk ci réew ma di tukki heure bu amee doom bu woddee ñëpp daf may wodd ba barki dem bi sama doom di sëyee ci mujj abib takkaay la ko jëndal loolu ak yëg-yëg la ci andi jox ko na nag du lu ma leen defal xëy na yàllaa ma boole noonu loolu kenn mënu ci dara dama yàgg ci kër gi lool nag xam ci lu bari kon nag lii ñu tef nii yàlla na dund ba di muur doom ji muy sëyee jàmm. waaw ñoo ngi sant yàlla bu baax a baax baax waaw bis bi moom wax dëgg yàlla moom rafet na lool ci lépp sëriñ moo ko waral ndax moo baax rek ak baaxam ndax maanaam ñu xew yi moom ñu fi war a ñëpp ñëw ñëpp ñëw nañ. doomi ndaayam yeeg doomi mbaayam yeeg ñëpp teew nañ waaw dëkkandoo yi tamit teew nañ waaw taxawaay nañ ko tamit taxawaay bu rafet. waaw te si def tamit yaakaar naa fekkoon na yor nañ lu ko ëpp sax dan ko si daal def ndax bis bi sunu bis la du bisub sëriñ moom dong waaw moom nag wax dëgg yàlla borom baax la nit ku baax la daal waaw kenn xawma ko si leneen lu lu lu baax kon nag lii nii lu baax dong moo ko may waaw lu baax dong moo ko may man nag xam nga rek dama xaw xawta mën a wax ak yooyu noonu mais yow lan nga bokkat borom bés bi ba tax tey suba ba léegi maa leen gis ngeen nekk ci affaire yi jàpp ci bu baax baax a baax a baax lu waral lool. waaw moom sama doomi nijaay la nekkul sama sama doomi nijaay la waaye sama xarit la sama doomi yaay la ndax du nëbbonte si lenn waaw wax dëgg yàlla amuñu lenn luñ nëbboon ndax ba nuy gone ba nii may wax ak yow maa ngi moom ñu ànd waaw tukki rek moo ñu tàqale waaw waaye bi bi nekk fii. tëdd moo daan daan jaxase xam ne day darin ànd di dox ba ngoon jot ku si nekk dem ñibbi loolu rek ma daan ñu tàqale kon nag bis bi sama bis la kon nag maa ngi koy ñaanal foofu mu nekk yàlla na ko fi yàlla ak Serigne Touba Mbacke dimbale ba ñibbi si waat fekk fi soxna si ak doomam bi si barke Serigne Touba waaw ki ma moom nan la gisee bésu doomam bi soxna si Wow. Wow, mang ngi am jàmm bu baax waaw maa am jàmm bu bah bah. No gisé sa bësu doom sama bësu doom bi xanaa kontaan ci rek ko ci kontaan ci rek Da xana limbu su fekk na borom nekk na fi tam ni ngeen fi taxawé ni du yàggam taxawo non. ndax xey wax dëgg Yalla ñepp ci japp. kuy dekkandu japp nga ci kuy mbokk japp nga ci kuy xar japp nga ay dooy bayam japp nañ ci ay doomi ndeyam japp nañ ci kon mom kontaan na trop. bés bi moom wax dëgg yàlla ba ko borom fekkoon tam nii moom bu yàgg ba mel ko ndax lii ma mënu yéen tamit nag maa ngi leen sant di leen gërëm te xam ne yéen tamit sonn ngeen torop Elhadj Lo mi nga xam ne sama kër gi fi xew ñoom seen kër gi dañ koy tëj kontaan naa torop ndax mënoon na rek ndoy loo fi nekk rek waaye tax suñu yoon nekk waa seen rakk ji fi nekk di fi sëy ni ma topp toore noon lañ ma topp toore kon nag kontaan naa torop te seen rakk ji fi nekk di fi sëy maa ngi koy sant di ko gërëm te xam ne moom man maa yaayam du wax dara te tàgguwuma du def dara tamit te tàgguwuma déggal na ma lu ma ko fu ma ko yem loo fa la yem lu ma ko def loolu lay def kon nag maa ngi sant di ko gërëm borom xew yi tamit tam koy gërëm muy Anta Sarr mi ma ko yem loo fa la lu ma ko def lay def ndax moom ndeyloo mën naa nekk am ru bàyyi fay gone mu ne man duma leen fóotal duma leen sang duma leen defal dara te bañ na ko ba taam la ñu ubbil ca biiru gaalam bu fóotee ba mu set mu paasam yéegi yére def bu sangee ba mu set solal na ma am ay bis àll nekk ci kër gi te moo leen topp topp ba këram ñu kon nag mën naa war a sant waaye ndeyloo tamit tam war naa sant mom tam yobante na mak cant ko ni sante am diko di ko gërëm di sant nag sama borom kër bi nga xam mom luma am rek mom suma toge fay fay fi di wax sama xale yi màgg ba mën naa yor yàlla jëmam rek lay sant ndax lepp mom la te lepp mom la kon ma ko sant di ko gërëm ci xewel xëy mom contane neex na tor tor tor dara manke wu dañoo lekk kër ay mom dara manke wax yalla ma sha allah dara manke lepp doy na wax dëgg ay magam jappal nañ ko ay rakam jappal xatam yi tam ak mbokkam itam tam ñepp jappal nañ kon sant ngeureum rek la ci ànd xew mom contane na torop xaritam yii fi nek ñom magal ba ñom daam ñoom ñëpp mënumaa lim dal waaye ñom ñepp japp nañ ci bu wér a wér wax dëgg yàlla wax dëgg yàlla kontaan naa trop wasalaam seut bi rek ba do ko maame maame ah sama seut mom dama ko wax dara mom dama ko wax dara mom way na wujju lay bañ wujju dal lay bañ ndam mom dal su fekkata neugut mamam rek mom amu ci mom soxla way nak mom man mom wujju lay bañ mm. baax na liir bi dégg na ko kan <laughs> menu kontan ngi kontaan bu baax. waaw kontaan naa torop torop torop santal ñu ma hélas lu baree bari tamit sant naa ko gërëm naa ko ndax lii lépp moom la ndax mënoon na la xew ci kër gi mu ne man gër bi ma jóg te lu xew ci kër gi day takk ndigam ànd ak ay mbokkam ba xewi jàll lépp lu ko war da ko fi debam yegg lu sëriñ war taxaw dina ko taxaw te duna li jox ni dina jox ma laaj loolu nag kontaan naa ci torop maa sant di ko gërëm wa salaam jërëjëf meen ñi kontaan bu baax sa sañ sa rafet na macha allah jërëjëf tudd la ko ah kon neex na <laughs> waaw ba tey ni ma ko doon am sama benn maire bu ñëw fii nii seen sa lu rafet macha allah tagalu ba ca kaw nag ma bëgg kaa dégg sama micro laaj ko lan la yëg ci bis bi mais na nga def maa ngi fi maa ah bis bi xanaa ibu yaay borom bis bi rek waaw di yaay ko góor ki di yaay ko jigéen neex rek waaw sama bisu doom la waaw neex rek xanaa baax rek baax te fonk yaay mbeug ko mënuma koo fay ya yaay mi bëgg ma lool yor ma yor ma yor bu baax lu lu xam wax ma lu jox am jox ma mënuma ko fay daal dama ñaan dama ñaan ci kàttuñu yàlla daal yàlla na dund ak jàmm doom yobbu ko peng ñu fekk ñu ci jamm te mom la koy ñaanal ah, sëriñ ñaan jëkëri anta ah sëriñ mom lu baax rek laa ci xam ci mom sama doom ji yarul la baax fonk ay waajuram dama koy ñaanal mom yalla nako yalla ak sëñ Tuubaa defal jamm rek li mu yóotu li mu yóotu lépp yàlla na ko yàlla bëgg lepp daal yalla nako yalla ak sëñ Tuubaa defal waaw. Ah, mère dañuy daal keneen mais sa na rob bi moom dama koy ñëw jël ko ci yow. ba ngi tamit ma bëgg laaj euh, kan ba pare euh, ndax ci suba ba ngi ko gis mu ci bi solo sëñ bi nangare nga def sant kay bu baax sax bi dama la gis tay da nga sonu torop ci bëss bi lu waral lool deug la parce que bis bi dafa nek sama bis quoi xam nga ki ngeenté sama doom baajan la sama doom baay la sama lepp la sama xarit la xam nga du tay daal yàgg na lu yàgg la xam nga moo tax xam nga ñu ma xam nga comme que nekk fi ñun ñoo fi nekk quoi ñun bisam ñoo ko ci wara mëna taxawal daal euh tax xam nga deug la sax xam nga sonu nañ mais sa waay sa waay la moo ko jar quoi moo tax ñu sonn xam nga moo jëndal ñun loo xam lu rafet la daal xam nga lu rafet noonu lu rafet rek moo ko mën a fay moo tax xam nga nit amul lu dul bisam daal xam nga bisam bii rek ci lañ mën a sonn xam ñëw jàpp ci xam nga ñu jàll ci jàmm après xam nga ko ñaanal xewal daal xam ak lii nii xam nga di di ko ñaanal yàlla xam nga dugal fanam xewal yi gën yokk waaw loolu lañ koy ñaanal daal

kon donc lepp luñ mën ci bis bi rek ngir def ko dinañ ko def parce que borom bis bi baxna wa keur gi aussi baxna suñu maman yi baxnañ suñu soxna si baxnañ vraiment wa keur gi am nañ yéeg yéeg trop quoi lolou motax lepp luñ mën rek ci bis bi dinañ ko def quoi. wa ba léegi ya ah, ni la koy defé rek ba keroog muy jeex mais na def. ma nga sant ba ba yaa am jamm bu baax. maa ngi am jamm no gisé sa bésu doom. ah bis bi mom neex na bis bi. neex na kontaan man borom bis bi sama rakkal sama doomu ndey la suñu yaay yi ñoo bokk menn maam te yaayam baax lool ku góor ki wala sëriñ sëriñ ñu génte yaayam ak sama yaay ñoo bokk maam sëriñ sama rakk la baax na magam baax na muy seex saa seen yaay baax lool bëgg ñu trop duñu bokk lu xew suñu kër Mati Sarr ñëw na ànd ak waa këram taxawu bis bu mu jeex samay càmmiñ ak samay rakk yi samay doom yu jigéen yëpp bu ñu xewlee yaayam ñun ànd ba mu rafet moo tax man dem gis nañ ci ci di jaabante di dem ak a ñëw xam nga euh, borom bés bi ki nga xam ne ne mooy euh, jabar ji loolee looy wax si moom. jabar ji baax na torop ndax kuram ko ndax nee na moom du dem fem te seex dafee fa sam nekkal indi na fi ay xaleem moo leen yor nee da leen di sang balaa sang balaa defar boppam sax defar xale yi toppatoo gorom yoral ko doomi seex yi neen da leen sang bam set da leen may lek neena fu ko neex yenn fu ko neex fanan neena du titul du dar ci xale yi ndax neena anta dafa baax nak anta sax man li ñew fi bari waye xamna amna ciant ci kër gi daal sant nañ wa ba tay keneen nga ni wa señ bi na nga def way sant suñu tubaab baax a baax loo yëg tey ci bés bi. dégg naa bisu sant la ak bisu mbégte ak bisu mbokk ak bisu xarit ak bisu dëkkandoo ak bisu sant yàlla ak bisu boo xam ne ci teral suñu gan gi nga xam ne la yàlla jox bu ko ko fan yu gudd ak wér ba ëllëg mu jëriñ lépp lu ñu fi mu fay leen ko ci bëri xasaay bi suñu tubaab muy sant bu baax bisu sant nañ mbokk yëpp teew nañ dëkkandoo ñëpp jàpp bis bi te am bisu la te sëriñ nag ku ne yéene ko bisu mel ni ndax nekk ne xëy na suñu mag la ay suñu mbokk la suñu xarit la ku ne ku fi ñëw ku ne ñëw na ko bis bu ëpp bii sax kon ñoo koy ñaan daal bis bi yàlla doon bisu njëg njëglaayam nekk bis bu xewal nekk bis bu jokkati ci moom wax dëgg yàlla ku fi ñëw daal sa xol seet na bu baax waaw yàlla bu bis bi bisu mbëkk bi yàlla bu yem ci bis yi yàlla mu doon ay bis bis bis joolee fas yi wax dëgg yàlla seet nañ bu baax suba bi ñu xëyee sëñ abo moom si ëpp laat moo ñëw tudd doom bi wax dëgg yàlla joxe joxe tur yi loolu mooy sant bu baax ndax sët suñ tuwaaw ku ñëw jël tuddal sa doom doom yooyu am nañ si yaakaar ndax si yeboom seet laat bu fi ñëwee tudd doom yi yëkkati fi xasaayit kon doom yooyu am nañ si yaakaar yàlla ñu yàlla mu doon ay bisi bis wax dëgg yàlla sant nañ bu baax nag sëy moom daa wóor wax waaye nag waxal moom seet bu baax xanaa bu fi balaa ngaa dem dina am lu ma la laajte parce que damaa dégg ñu ne jàngkatu xasaayit waaw jàngkatu xasaayit la waaw léegi damaa bëggoon nga ñamal liir bi loo xam ne ne après moom bu xoolee image yi rek dina dina la baax xew di baax xëy na daaw suba jël nga ni mais daaw suba. waaw damaa bëgg nga ñamalaa ñu fii tuuti rek. xasida yi moom du doy. waaw lu dul doy waaye waaye xam naa ñu jëmal waaye wax dëgg yàlla. رب يشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني ويفهم قولي حمدي وشكري لمن كلي بسارة لو ريدان دون سوقت حند سرسارة لو سناي وردواني بلا ثقة مسخاد لي من بني دايما انصاره لله كل لدى أبار مكرمة من تعلسي فيها أجمن سارا إن نسينا إلى سرسار قد قصدوا سيارة فارخ دارين وسارا ah neex na neex na adday sëñ Touba jërëjëf sëñ bi ñu ngi lay jaajëfal bu baaxa baaxa baax a ba tay ma ngeet fi nii benn mère bu ko laaj mom tamit lan lay xam ci bés bi euh mais na nga waaw sant yalla bu baax yaa ngi am jàmm bu baax yaa ngi am jàmm bu baax yow borom bés bi sa lan sama gorom sa gorom la waaw sama goro maa ngi koy sant maa ngi koy gërëm ma ngi ñaan yalla musal leen ci cat ak bët ak seytaane musal leen ci bépp musiba yeeg balaay ndax am nañu yar am nañuy teggin sama ñaari sama ñaari gore yi dam fi wàccee léegi kenn musta jaar seen diggante kenn xajut seen diggante kenn xamul leen dara may nañu jàmm may nu salaam bu dee lekk ñun lañuy njëkk a jox bu dee naan ñun lañuy njëkk jox bu dañu ñëw ci man toog waxtaan ak man ñu kaf na buñu ma seen dara nah, may ma sama njabot sama ñaari gone ni bu ñëwee ci kër gi ñoo leen gënal ñoo leen gënal seen ndey leen jur ñu yëkkati jox ko sama njabot njaboot mom jamm rek kay mbokk sun maa ko koy fa mu gudd ak wër am na yar ah, sori am na yaram may teggul nday la ma def waaw mom nday rek la ma def nday rek la may wax waaw am na yaram may teggul teggin seex maa ngi koy ñaanal mooy ñun ñëpp maa ngi leen di ñaanal fan wu gudd ak wér yàlla nañ yokk ba yëg ko ci barke Sëriñ Tuubaa ñun pour yàlla defal jàmm te may leen fa ñu ne suñ bëgg a yàlla nañ fa pour yàlla àggale ci barke maam Thierno. bul fàtte sa sa sa goro bi sët bi. waaw sama sët bi. Eh, <laughs> maam Bousso moom mi ngi fi di ma sonal rek. <laughs> kooku moom moom mooy sama caat moom waaw kon baax na kontaan bu baax ci yéen kontaan nañ <laughs> bu baax mais mu lay gërëm di lay sant maa ngi ko sant bu wér wax dëgg yàlla musuma def leen lu ma mett mbaa lu ma naqari lépp lu ma am sant naa ko gërëme naa ko ko lépp lu ma am moom waaw liñ seen barke bàyyi topp seen liggéey mbay barke léegi dama koy laaj li nga xam ne ne moom lan lay digal kii nga xam ne ne mooy xaritam di magam di léppam euh, soxna si looy digal ki nga xam ne ne moom ci néegu sëy waaw kontaan na sa dëkk yàlla man damaa mënut wax nag looloo tax waaye su ma la wax damay wax fii ba suba waaye damaa mënut a wax wax laa mën si boppam waaye kontaan na lool nag dëgg yàlla di ko ñaanal rek moom ñaanal ko yàlla rek lañ def ndax amuñu fayaku dëgg yàlla sant nañ ñëpp nag gërëm ñëpp bàyyi ma kenn waaw moom la sañ sa beeg moom la bu ko neexoon man na ma seetaan. ma lii daal ñoom ñëpp mu dëkk yaa ñu ci jàpp naa ngi ni sañ seen ma daal ma mu ma ndax moom barke yàlla di ko ñaanal yàlla ma wax si ma naa ci lay ci lay fanaan nekk rek mu dëkk yàlla defal ko barke sant na fëri ñaan ndax man la ne bu ñëwoon naa ñëw rek gën a la maa waaye mën naa ñu ñaan ñëpp la yemale li mën naa man li may defal sax deful ko antax dëgg yàlla bëgg na ma yërëm na ma jàppale na ma ci di leen sant ñoom ñëpp sant seen mag feex feex ma ci man daal damay sant ñoom ñëpp am ma seen fay su ma dee wax ci ci laay fanaan di sant tamit ndeyloo ndax ndeyloo nekk na soo moo xam si ne suñu mag la dafa ko neexoon te mën naa nekk feer fàtte ñu du lijjanti te damay woo di waxtaane man dëgg yàlla di sant bu baax di nga gërëm ñoom daara gi ñun sant ñëpp sant sama papa ba nekk foofu ak ñëpp daal ma li ma daal damay ak ñi ñëw si xew bi ñëpp nag jàpp si xew bi ñëpp na leen si gërëm. di ko ñaanal yàlla gudd fa nag wér xewel gi yokk ma dund ba sama turandoo ma muur ko muy sëy ñëpp fekke kontaan naa trop moom. Ah, yow leen tuddee bébé ma leen tuddee bébé bi. ngeen li moom dafa neex damaa kontaan ba ma maa wax ndax anta dara manqué wut dara paralysé wut korité damay jox tabaski damay jox man daal sant naa ko moom. yàlla na ko yàlla defal xéewal lim lim bëgg ci caari yàlla na ko yàlla Serigne Touba Mbacké defal mag Bintu Gaye mii sant naa leen. waa tamit ba léegi maa ngi toogal kii nga xam ne ne mooy borom bës bi ki tax ñëpp bàyyi seen kër yi tëj seen euh, bunt yi daal di ñëw wuyu si ko léegi moom laay dégg sama micro nag daal di mu mu remercier ñi nga xam ne ne ñëw nañ teewal ko daal di wax lan la sentir ci bësam bi ant na nga. maa ngi fi. Anta tey loo sentir ci sa bës xanaa neex rek. vraiment content na trop sama xarit yi ak sama wujj yi ak sama xaytu jëkkër yi sama jëkkër yi ñëpp daal maa ngi content si ñoom bu bëgg a dee maa xam si bis yow content nga daal loo sentir maanaam yow ban mbégte nga am xanaa content rek parce que dara neexu nga am sa bis mu jaar yoon dëgg yàlla dara manqué wut lekk yi doy na naan bi doy na sanse bi rafet na macha allah la am na may wax gis nga maire yi ni la taxawoo fii nii ñoom ñëpp ñëw sonn ñii jàpp ci euh, añ yi ñii jàpp ci kii yi di jaabante at sa xaritu jëkkër yee sa doomu bàjjen yee loo leen wax ñoom. ñoom xanaa di leen ñaanal rek sama doomu bàjjen yi ñu dem a dem ba am gis bu mel nii daal ma taxaw fa comme ni ñu fi taxawee loolu laa leen ñaanal sama njëkkee tamit gis na ñoom dañ maa bëgg ma bëgg soo woon rek su man la des noonu lañ may defal dëgg yàlla kontaan naa si ñoom daal. ñoom tamit ñoom ñëpp rek maa ngi kontaan si ñoom dañ maa bëggal ñoom ñoo ma bëggal seen bopp war na yàlla bi ma ëmbee lu ma yëkkati ñu ne ma tegal ñu ma def dara ba yàlla kontaan naa si ñoom. waaw euh, su ma déggee si ay waxam defe naa ne kontaan na ndax xol bu kontaanee rek nga wax de du mën a bëri waaye euh, pareeguma yow de looy wax ki nga xam ne ne waa moo nekk ca kaw yow nga nekk ci suuf toogal ko fi muy euh, sëriñ. sëriñ moom amma fayam sama borom kër kooku moom kenn moom maa ngi koy sant bu baax lu ma bëgg suba ba ngoon ah moo ngi si ñëw ma sama benn morom lu ma soxla moom ma koy defal wax dëgg yàlla seetaan ma benn yoon maa ngi koy ñaanal daal mu dund ba ay njabootam di ko fay ak suñu Fallou Mbacke. waaw doo ci yokk leneen lu gën a. kan man day dem. kontaan naa si sëriñ bu baax amma fayam wax dëgg yàlla lu ma bëgg suba ba ngoon moom ma koy defal ñëw ma sama benn morom wax dëgg yàlla man daal amma fayam kontaan naa si moom lu bari sama chéri boobu ñaawul boobu nag looy tàggatoo xanaa waxuma gaaw dikkaan namm naa ko bare bare bare léegi nag bébé bi nga xam ne ne ko kii nii gane si àdduna bébé bi koy wax ñaanal rek mu dund ak sama bébé boobu rafet kaar maa ngi koy ñaanal mu dund ak sama benn boobu xam ne gamewu ma wax bëgg ko sama xol laa ko def sëriñ maa ngi lay ñaan nga dama torop torop ñibbisi lekk kontaan naa bu baax wax dëgg yàlla jàppale nga ma kontaan naa maa la noppi